asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi seen xarit kër Diop Thialwer moo leen di nuyu fii Mourchid TV la chaîne des valeurs euh, niñ ko baaxoo def àllarba ñu nekk à 15h30 ñu fas yéene jàkkaarloo ak yéen def ak yéen seen émission Thialwer émission Thialwer émission la boo xam ni euh, wax dëgg yàlla mu ngi leen di ñaanal yéen waa Sénégal gépp ngeen nekk ci jàmm euh, seen xarit kër Diop. mu ngi ñaan képp ko ne ci jafe-jafe yal na ko yàlla saafara képp koo xam ne dañ laa téye dañ laa teg loxo ni ko wolof yi di waxee ah te fekk tooñu loo yal nañ ci yàlla génne koo xam ne da ngaa sàcc wala nga rey dëgg yàlla man sama yoon nekkul ci yow mbokku téléspectateurs yi euh, émission Cell Weers saa yu nekk suñ ñëwee dañ leen defal émission boo xam ne danañ leen léebal léebu leen cax leen faram fàcceel leen ay baati wolof laaj leen ay laaj euh, su ko defee mënoon naa ci yokk sax waxtaan ak yéen ci mboor ak mbatiit waaw mooy culture rek ci gàttal su ko defee euh, émission Call Weer euh, xam naa buggoon nañoo waajal sax at mii di ñëw buy jeex anniversaire bu mag fukkeelu anniversaire am ndax dugg nañu yaakaar nañu ne fukkeelu at bi ñu ko tàmbalee ak léegi wax dëgg yàlla Sénégal gi di ko seetaan di bëgg lool ci ñi nga xam ne saa yu ñu taseeg ñun di ñu ñaanal di ñu encouragé di ñu ñe meñ loo mbokku téléspectateurs yi tey li ñuy def rek mooy mere nañ njaga njaay yi lool nag ndax ñoo ñu tardeel ci àll bi ak super yi mere naa leen man tata yi laay faral parce que tata bu déparé fii du fa mu jëm dana fa yegg njaga njaay nag amul régle euh, ñun wax dëgg yàlla gisuma ku ñuy waxal ñi may dégg fii xaw may activiste la ñu xaw ma li ñu war a wax duñ ko wax dañuy fekk yu ñàkk fay ay politique ñu koy wax soo demee nit ñuy dugg oto li ñuy daj ci Sénégal par jour li ko jógee Kër masaar jaam jaar yëmbal bombardé banlieue bi xel nanguwul su nawet ñëwee man njaganjaay wala car rapide bi nu ma neex laa koy defee damay dagg diggante yëmbal ak njaganjaay ñetti arrêt def ko ñetti paas cent franc ma def ko trois cent continué loolu ba àgg Pikine muy cinq mel ni réew mi loolu ñuy wax man damay bëgg activistes yi nga xam dañuy wax dañu nañ wax ci loolu ah loolu dafa metti il faut ñu wax ko mooy dañuy tripler quadrupler sax parce de temps en temps les Ndiaga Ndiaye et les yéen xam ngeen li may wax euh, kii nag dañuy festataay mais fi ñu bëgg a dem dañu fay dem mais euh, au moins jamono Ablaye Wade amoon na régularité bu ñu indi woon mooy ñu bind tarif yi lu tax ñu arrêté loolu il faut que tarif ñu bind ko taf mënuma xëy ci oto dugg ale fay cent retour client yi bari ñu ne 200 ngay fay loolu moom foofu de ñu may seetaan xam nañu loolu képp ku dëkk banlieue da ngay dund loolu au quotidien mu mel ni ñoom it wax dëgg yàlla lu ñu leen san teg rek ñu nangu ko ma jël oto léegi ñëw wàcc ci restaurant bi añ ba pare génn client yi bari nga ne ma 200 la léegi te 100 laa fay bi may ñëw ma ne waaw ñoom dañu jàpp ni ku ne sa buntu oto lu la neex ngay wax eh xaaral ma dugg ci émission bi sax mbokki téléspectateurs yi su ko defee euh, seen émission Call Weer ci Mourchid TV la chaîne des valeurs day suivre actualité nag euh, ci yooyu la ñuy dox ñun euh, di leen indil nag cax bi dañ koy teel a joxe tey laaj yi ndax suñu eggee ci ubbi téléphone bi ngeen bañ a réer fekk ngeen waajal ko xalaat laaj dégg nga ma jël émission bi da ngeen koy teel a jël euh, ñu door a dugg ci waxtaan wi ñeenti laaj yi ñett yi lañ leen di jox bu ñu dugalee léeb bi indi ñeenteel bi nga xam ne ci léeb bi lay génnee suñu laaj bu njëkk bi aw cax la man ci nit laa nekk waaye sama tur boo ko xaajee ñaari xaaj tur wu danga da nga ci génnee ñaari tur man maay kan dégg ngeen man ci nit laa nekk ci nit laa nekk sama tur nag boo ko xaajee ni ci digg bi ñaari tur ci xaaj maanaam tur ni ma tudd nii boo ko xaajee ci digg ba xaaj bu nekk mën nga caa génnee ñaari tur waa xam naa sama gars yi ña nga ci ñoom dramé waaw su ko ñaareelu laaj bi bërgël en wolof en tubaab du moins bërgël lañ koy wax ci wolof mooy lan ci tubaab bërgël waaw dama bëggeen tontu ci bërgël en français c'est quoi euh, njëm gimiñ ku ko doon ci tubaab lay wax parce que olof am na lépp ñun euh, lu ñu foog ne amul ci olof rek mu ngi ci njëm gimiñ gis naa dégg baat bi fi ne boo ko waxoon ci xale yi ñun woo wax wax na lu yàgg quoi njëm gimiñ ku ko doon firi ci tubaab lan ngay wax boo ko firee da nga xam ne olof am na lépp ñu dañoo am complexe wax suñu làkk rek waaye lépp a ngi fi kon ñetti laaj yooyu génn nañu bërgël mooy ñaareel bi nuñ koy waxee ci tubaab njëm gi miñ en français c'est quoi su ko defee nag euh, jël leen suñu numéro 88 628 66 92 en attendant ubbeeguñ téléphone bi nag xaajaguñ ko sax ubbi nag ci kanam buñ léebee ba pare lañ koy ubbi waaw jël leen 88 628 66 92 su ko defee rek ñu ñëw léegi dugg ci waxtaan wi euh, waaw waaw bu ko defee tey dañu indi ay baat yoo xam ni moom la ñuy duggee ci waxtaan wi muy baati olof yu am solo baat yi dañoo dend olof di ko wax te muy baat yoo ne wax dëgg yàlla dañoo riche mooy léebu gaaruwaale garmbaasu réex réexle mosoon nañ cee wax ci beneen angle mais jaxaseewuñu woon noonu nii baat yi ñun dañuy bëgg lépp lu ñuy wax ci olof rek dañ ciy dikkaat di ci dikkaat lu bari ndax dafa am ñoo xam ne daf leen soxal am ñoo xam ne dañ koy fàttali la ko laajaat am ñoo xam ne mosuñ ko woon a dégg ndax nag télévision saa yoo waxee dara rek bis boobu am na ku koy door a dégg soo ko waxaatee am na koo xam ne keroog la koy door a dégg ba àddina du tukki soo ko waxaatee am na xam ne keroog la koy door a dégg te suñu njariñu émission fii ci Mourchid TV la chaîne des mooy ñiy jàng olof di làkk wolof bu baax bañ a xepp seenu làkk waaye ñu xam seen mbatiit ak seen cosaan maanaam seen culture ci gàttal su ko defee léebu gaaru waale garmbaasu réex-réexle ñeenti baat lañu am maanaam am am na yeneen nag waaye damaa jël ñeenti yi rek jël ko si beneen angle euh, su ko defee léebu léebu ci olof mooy lan ndax am na ñuy ñuy wuutale baat yi fekk dañoo xamul ni am baat bi contexte mooy tax nga wooye ko nii wala naa yenn saa yi ndax dégg nga li may wax li tax may wax ni lii léebu la wala gaaru wàll la da dangeen koo dégg ci ni may waxee euh, bu ma jëlee baatub léebu nga ne ma wax ma wenn léebu rek bari nag duñ jeex ma ne la ku lay tere njaar booba ma nga bokk xas ngilitam ki lay tere njaar ma nga bokk as ngilitam loolu léebu la waaw Euh, baat bu ma gëj dégg la nag lu tax ma indi ko ndax mag ñi ñoo ko daan wax xale yi am na ñoo xam ne boo waxee lii dañuy defen daw na ngay làkk ndax dañoo yàq làkk yu dañ ko waxatul te am na xale yoo xam ne nag saa yu ñu toogee ci émission bi dañuy jël seen big wax dëgg yàlla am nañu ay fan club yu yoo xam ne euh, dañuy toog di ñu woo am na Pikine am na Tivaouane euh, saa yu émission bi commencé dañuy toog jël seen temps di xool di jàng ci wolof bi surtout temps vacances yi ku lay tere njaar boo ma nga bokkas ngilitam am na koo xam defe ne damaa lépp déedéet njaar mooy lan jaaru dama ni ku lay tere nga jaaru wolof nee na booba denc na gilit gilit mooy lan gilit mooy lan brèche une brèche defe ko tubaab bi wax mooy matt gu ñu bu tàkk mooy gilit Uh, boo ma ko doon wax ku juddoo Ndakaaru dama naan ku lay tere nga jaaru ma nga denc ay xalam ndax nga gën a xam li ma bëgg a wax wolof daan wax ku lay tere njaar boo ma nga boo xas ngilitam xam naa baat bi rek mënoon naa cee taxaw def ci émission ndax da am solo euh, ci yan contexte lañ koy waxee euh, ak lan yan lañ ci mën a déggee waaye bu ma la nee ku lay tere njaar moo ma nga boo xas ngilitam rek wax naa la aw léebu du loolu rek mooy léebu nag yi mu nirool yëpp ay léebu lañu waaye léegi ndax baat boobu mën na nekk gaaruwaale waaw am na contexte boo koy dugal mu nekk gaaruwaale moom laa la bëgg indil gaaruwaale mooy baat bi bi ma koy wax sànniwuma ko dama ko wax ngir gaaral la ko yow mi ma jàkkaar lool dangaa def dara ma ne ah <laughs> ku tere njaar booba ma nga boo xas ngil tan ma ñëw di ma tere dara ma jóob bul defati nangam ma ne ay waay ku lay tere njaar ko ma nga boo xas ngil tan yow li may tere yaa ngi koy def ci suuf booba gaaruwaale naa la parce que wax ji dama la ko adressé directement wala ma dégg ngay wax ay nit ma dugg ca sama yoon newu ci ma dégg nga naan xale yi xale yi di leen jub di baax di leen def lii man sama yoon newu ci ma bëgg a yàq xelu kooku ma ñëw ne ah sama rak gis nga ku lay teree njaar booba ma ngay bokkas ngil tam booba maa gaaruwaale ki wax wax ji est-ce que dégg nga ma kon baat bi wax naa la ko mu tudd léebu ma ratax la ko mu nekk gaaruwaale ndax nga gaaruwaale ak léebu nekk amul différence bu sori nii nga ne baat bii léebu la baat bii gaaruwaale la déedéet contexte bi moo ko indi mooy fee dama ne dama da nga ma ni wax ma aw léebu rek ma sànni la ku lay tere njaar wala ma wax ko nii te ko ci kenn ma toog rek ni ku lay tere njaar boobu ma nga bokk ci ngilitam ñu ne ah dafa mën a léebu ma ratax la ko nag ma wax ko dendale ko yow mu nekk gaaruwaale léegi ma ñëw ci garmbaasu muy lu na xarit lijjanti nag garmbaasu sorewul ak gaaruwaale euh, waaye garmbaasu mën ngaa jël wenn léebu wala benn wax boo xam ni euh, ki nga ko jëmee daf laa jege lool jubluwoo sax mu xam ni directement moom ngay waxal waaye soo daaneel rek bu amee xel dana xam ni yow mi moom ngay waxal sorewul ak gaaruwaale nag euh, jigéen ji jël dara di wax ak jëm di ko wayantoo di ko di di ko dendale loolu xeetu garmbaasu la daan ah kii de wujj wi lay garmbaasu wala mu nekk sax loo xam ne da koo def waaye ci biir def ji mi ngi ci jublu xamal wujj wi ne lii ak lii yow yaa tax ma di ko def ñu ne hey wala sax yow xamoo kan la mais nga dégg may wax rek nga ne ah kii am na ku muy garbaasu ci mbooloo mi bu la neexoon nga wax ko fa gaaruwaale nag moo tax gaaruwaale ak garbaasu sorewuñu mais garbaasu ñaare dañ dañ koy wa mën nañ koo wayantoo sax euh, wala ñu kàndang ko ci gën ba pare mu nekk garbaasu ñu ne ah, kii de mi ngi garbaasu wu ji wala diw dafa bari lu muy garbaasu trop sa faa ko tekk rek am na ku muy garbaasu euh, loolu kon gaaruwaale ak garbaasu yenn saa sax mën nañoo weccee place bi parce que waxu olof nag day doxantu parfois euh, léegi mu ñëw ci réex réexle waaw réex réexle euh, li tax olof waxam riche euh, wet wetal wax la ba tey waaye wax ji da ko koo jëme ci nit waaye provocation la moo gën a moo gën a soxar gaaruwaale mooy euh, ki ngay waxal dafa def dara maanaam da nga nekk ak naa jël wujji rek sa sa wujji moom du la nuyu da ngeen a meroo daal yëfu xale yooyu ñuy def du ngeen tuddante léegi nag mu jekki-jekki nga gis mu yónni sa doom waaw mu yónni sa doom nga bëgg koo loo naqarlu loolu nga ne ah waay lagg si leen waay ay waay waay dëkk bi am na ñu amul jom ah waaye ma ne nit ku ko dul nuyu nag war a fa bàyyi ay doomam nag doo leen yónni gis nga affaire yi nu ñu dendee waaye bii moo gën a bii provocation la dangaa bëgg mu tontu nga defanteeg moom wala mu dama ko jël foofu rek mënoon naa wax leneen mu laal lenn loola jege rek nga ne waaye yow kii ana ko def lii waaye kii dafa dof de yow yaa ko séen bi muy tuur ndox mi waaye da ngaa bëgg a jàppanteeg moom nga ñëw ni waaye man dof moo tuur ndox mi fii waaye yow kii ma ko fekkoon olof dana ne réex réexle le ku réexati yaa yaa gën a gisaatoo bi muy tuur ndox mi donc euh, réex réexle dafa jege provocation loolu nga ci jublu ñaare prêt à se battre da nga bëgg waa ji encaisser coup bi nga wax ko ci beneen contexte donc euh, su ko defee lépp nag baat bi leen boot mooy léebu baatub léebu la nga génnee ci ay gaaruwaale garmbaasu réex-réexle am na yeneen yoo xam ne indiwuma indiwuma ko su ko defee loolu yëpp dafay wane olof ni mu xereñee ci wax te buy wax li muy wax nii day nekk wax boo xam ni euh, day boot lu rëy ci làkk wi boo ko bàyyee rek ñàkk lu bari euh, ndax am na ñoo xam ne dañoo rusa taxaw actuellement di wax réex-réexle dañ naan waxu kaw kaw la daal waxu kii réex-réex la ñu waa yaa ngi wax lu yàgg réex-réex la ay wolof la waaw man bu ñu faloon président de la république pale laay toog naan réex-réex léey ku réqati lan moo tax ñu complexe aw wax olof pourquoi lu tax lu baaxul euh, su ko defee rek xam naa tey dañoo yàkkamti rab-rab ji ba jotuñu sax joxe dédicace ndax ni ñu duggee ci émission bi waaye dafa am suñu mbokk boo xam ne rek moom du jaw lañ koy wax mu nekk euh, fële ci euh, section Euh, Gueule Tapée way wax dëgg yàlla mariage sama soxna Khady Diaw seen xarit Mamadou Diallo mu ngi leen di euh, ñaanal sëy bu yàlla def xeewal toftal ci ay njaboot waaw su ko defee euh, am na lu ma dégg ci baatu olof bu ñu damm tey ci suba ci rajo foo xam ne ñëpp dañ koy déglu émission boo xam ne ñëpp dañ koy déglu ñu damm baat bi mooy néeg wax dëgg yàlla néeg bu ñu demee ba di ko yàq senegal kii wax booy déglu kasetam bi ñuy teg ndéeg lay wax ndéeg du wax mukk néeg ab néeg ñu ko demee ba di ko yàq ci olof ndéeg euh, ndax boo yooyu buñ ko buñ ko sàgganee ba mu yàgg day dem ba dañuy dem naan waaw ñaari yëpp am wala ñu naan saalum ñuy wax ndéeg fekk du loolu néeg rek moo am néeg ku ko yàq yaa ko yàq néeg amul ñaari tur néeg la ci wolof chambre room en anglais waaw jeex na tàkk suudu en pël nga ñëw ci olof bëgg fee am néeg bëgg fee am ndéeg looloo jul nel bopp bu ñu wat nel ñu koy wax ndel xale yi la ñu wax nel ndel la ñuy wax day dem ba mujj ndel dañ koy moomale naan waaw jolof jolof bi mooy wax wala kajoor kajo bi déedéet ndel amul nel moo am euh, toujours damay faral di wax xale yi ne baat boo déggee euh, son bi son baat bi fu ñi def phonétique xam nañ li may wax silaab bi nga xam ni moom ngay wax su dendee ak beneen ba ci ci ci ni ngay déggee son bi nii riirum baat bi dangay dem ba dangay jaawale waaw bu ma bu ma la daandoon ni la eh bal benn yoon ma ne la eh bal lu ma wax da nga ah dal nga wax fekk waxuma dal parce que bal ak dal dañoo tolloo dañoo yem dose ni ñuy riire dafa bokk nel ak ndel dañoo tolloo kii ne ndel dafa xamut du waxin wu mu jëlee ci kenn wax dañ ko yàqe noonu mooy waa ji ma dégg tey ji suba alal ba ji ma toog nii jàkkaarloog yéen ci benn rajo mu mag mu del ndel magum jëm mu euh, kii ndéeg waaw ci ndéeg bi am na beneen waat bu mu yàq naa ci ñëw ndéeg wax na ko yoon yoon nag ndéeg bu ñu nekkee ci ndéeg bi mag moom bu ñu nekkee ci ndéeg bi dafay mel ni ñu koy euh, teg duñ ko seetlu dañ ko bàyyi xel man moom wax dëgg yàlla euh, dama bëggoon rajo yi gën a fonk làkk wi ak télé yi ba ku lu fa waay juum sax ñu wax leen ko day dana tax ëllëg ki lay enregistré sax boo juumee mu laa da ngaa juum loolu du wax kenn du wax ndéeg man du ma du ma dem di jël nit ci interview mu wax ndéeg juróom yoon te dégguma ko mënul nekk man bu ma doon waxtaan ak nit war ko surtout loo xam dañ koy tegaat bu juumee bala moo noppi daan ah moo ko fàttee rectifié sax naa ko wax foofu ne ah dafa juum de kenn du wax ndéeg néeg la ñuy wax parce que am na xale boo xam ne da koy dégg rek jël ko di wax ndéeg <laughs> beneen baat bi mu yàq mooy mu ne ñeemantal <laughs> mantal wax na ko man yooyu ñaare du ma rëcc boo juumee rek loo dam rek day ñëw ñeemantal eh xam ngeen baatu ñeemantal ci wolof ñeewantal la ñuy wax waaye mantal guleet maa ko dégg nag tey ci Sénégal gi mbokk téléspectateurs yi euh, dana ñëw rek dugg ci yeneen baati wolof euh, ci kanam la ñuy dugg ci léew bi baati olof yooyu euh, dafay wane rek ni ñu mën a yàqe làkk wi te li ci raw mooy média yi mooy dafa am ku wax ci benn média ni dafa am xibaar bu ñu dab dabaatal waaw mu ni te yooyu boo koy wax boo seetluwul da ngay defe ni juumul ki xamul nag moom du koy jël bu ëllëgee lool la wax day defe ni lool la ndax ñun dañoo gaaw ci man waaw damaa déggul olof nag waaw ñi man waaw law bi laa ñi man séeréer laa boo ko yóbboo séeréer di wax séeréer yu baax waaye dafa bëgg lay rek day wax lu ko neex ci wolof wolof lay waxee guddeeg bëccëg moom lay lakk soo ko bëggee jubbanti man la ah saa waa ji nag man dama du wolof quoi boo ko làkkoon séeréer nga xam ne du séeréer wala du pël waaye day wax loolu rek da koo rek mooy xabaar boo xam ne daf ñoo dab dabaatal dafa yomba juume dafa yomba bàyyi mu jàll ndax ki ko kii defe ni dafa jub xabaar boo xam ni daf ñoo daba dab dabaatal dafa benn xibaar léegi bu ñu dab dabaatal loolu mooy lan dafa am benn xibaar bu ñu dab dabaatal lu tax waaye waaye dëgg-dëgg kooku kooku bu doon tubaab ñemewu la def erreur bu mel noonu ñemewu ko dama toog studio war a def émission am xibaar boo xam ne tardivement la ñëw dafa yéex a ñëw ma bëgg a wax loolu ci wolof ma ne dafa am xibaar bu ñu dab dabaatal ay waa ji loolu metti na di te diis eh waaye dafa am benn xibaar bu ñu dab rek nga ci wuju dab dabaatal di dem di dabaatal di dem rek eh dafa am xibaar bu ñu dab léegi point bas waaye bëgg a waxi olof yu leer dafa am xibaar boo xam daf ñu dab dabaatal oh arrêtez ça su ko defee yooyu baat la yoo xam dañ koy faral di seetlu ci média yi parce que même faral yoo xam ne ñun ñiy wax ci télé yi ak rajo yi lu ñu yàq day gudd day dem day tasaaroo parce que euh, kenn mënatu koo dabu ba mu jeex waaye nag euh, ñiy wax ngir defar tamit soo waxee sànni ñoom it ñu wax sànni rek ki dajeeg ba la juumloo bu bu dajee ka xam ba jub mu ne ko déedéet yow da ngaa juub du lii waaw waaw wax lu woon lii de waaw te calweer nag njaayee ni Sénégal yëpp moo la gën a déggoo la loolu ñoom xam nañ ko sax su ko defee euh, am ku ni euh, pour que ñu xamanti ko ak ñoom moom loolu la wax daf doon wax benn wax mu ni boo gisee du ma du sori ci phrase bi nii da bu guddee nit ñi duñ xam ne ma bëgg a wax dafa wax rek ni pour que ñu xamante kook ñoom dama indi woon samay doom pour que ñu xamante kook ñoom loolu mooy lan pour que ñu xamante kook ñoom pour que bi tubaab la sax soxlawuñu ko woon ah waaye gannaaw ñu dañoo tàmbali ay tubaab man mi sax damay waxi tubaab bu may bu may def émission pour que ñu xamante kook ñoom waaw xam nga mënoon naa parce que bu ma génnee baat day mel ni tubaab bi taxumaa jóg génnee tubaab bi taxumaa jóg xamantikook ñoom bi moo jubul pour ñu xamanteeg ñoom la ñii dama leen indi samay doom lañ pour ñu xamanteek ñoom pour ñu xamanteeg yéen pour ñu xamanteeg ñun invariable du changé pour ñu xamante c'est variable waaye pour ñu xamanti koo oo oh, loolu pour ñu xamantikook ñoom bu ma doon wax olof bu set wecc nag ngir laay wax nga xam ne damay dàq baat tubaab bi taxumaa jóg foofu damay bañ ñu defee ne baatu tubaab bi moo ma dérangé déedéet bu doonte mënoon na fa ñàkk ngir ñu xamante dama indi samay doom ngir ñu xamante ak yéen ngir mu xamante ak yow ngir mu xamante ak ñun xamante bi bu changé invariable en wolof waaye xamantiku pour lan ana iku ba fu mu jógee xam naa Serigne Cheikh Baara maa ngi koy nuyu bu Touba nekk un wolof wolof ma ngay mbëkk suuf si moom iku yooyu da ciy liggéey du bari a nangam yeeg yooyu iku yi da koo bëgg pour mu xamanti ko ak yéen euh, loolu nag bis bu nekk euh, lu baree baree bari lañ ci ciy mu ci télévision yi te li ma ciy gën di sonal ak rajo yi mooy ki koy def dañuy defee mooy ndaanaan la ne ci télé moo koy gën a dégg wolof da ngay dégg benn am bu nekk bi benn télé chaque jour mu wax ko boo koy déglu damay son damay xuus sama kawar gi yenn saa yi nit woo ne ma tuddal turam ma ni ko non Mourchid TV la chaîne des duñ tudd kenn tur bi mënoon na bañ mënoon na nekk benn rubrique bu ñu wutoon pour loolu waaye loolu amu fi dañ koy wax rek pour ñu bàyyi ko xel amul benn bis bu mu dul damm ay baati wolof te buy wax nag wolof yi wóor lay wax waaw nu ko neex mu santale ko baat yi xam ngeen ko xam naa ko waaw kooku moom dafa sonal waaye nag xam nga ni euh, dama indi diw pour ñu xamanti kook ñoom waaye pour xam pour ñu xamante rek la waaye dëgg xamantikoo bi amu fi su ko defee euh, am ku wax ne fitna ji am démb dey euh, dara waralu ko lu dul taw ju bari ji ak ndox ju bari ji <laughs> kooku moom moo gën a neex ñëpp ci inondation yi mu ne fitna ji am Kër Masaar démb day dara waralu ko taw ju bari ji ak ndox ju bari ji ñun di ko xool muy wax waaw léegi dëgg dëgg dëgg man loolu xaw ma te li may faral di wax te di ko baamtu su ko dammoon ci tubaab hee dootu ko dolli dañ koy ree keng keng keng keng parce que ñun dañoo jàpp ni tubaab lu sacré la suñu làkk wi amul fulla amul fayda nu la neex ba la neexee nga wax déedéet waaw taw ba amoon Kër Masaar démb day dara warul ko lu dul ndox ju bari ji taw ju bari ji ndox nan la sant ju déedéet taw na la sax ju déedéet dafa am ñoo xam ne lu ñu jël santale ko ju am na ku koy wax ci benn rajo la nekk moom tamit moom lu ko neex aw la koy santale day wax aw yàlla aw nit aw ginaar noonu rek te moom it lu muy xaar ku ko wax rek ku ko ne cocci rek ndax moom daf nit day dem ci wax ba yaakaar ni moom moom nit ñi xam nga schizophrène yi dafa am ci wax schizophrène yàlla xam ne dafa am ci wax nattu la mooy nit ki dem ba yaakaar ni callu weer defe ne moo moo raw ñëpp melu ma noonu nag man lu ko neex wax boo ko doon critiquer sax du la déglu du bàyyi nga daanu la mu lay tontu rek lay xalaat boo ko nee wax saa yi am na loo mu ngi xaar nga wax ba mu tax la benn tontu xam naa genre boobu la mooy wax yàlla aw yàllaak aw nit ak aw wolof ak lépp aw la sant am na yu sant ci aw ci kii waaye ab taw taw bu bari bi la wax dëgg yàlla am ndox ndox mu bari mi la ñuy wax ah da nga naan fitna ja dara war ko dul taw bu bari bi ak ndox mu bari ma taw bi moo fi waaye loolu sax taxul may wax dama ne taw bu la sant waaw boo demee ci article tubaab waaye dañuy wax la pluie waaye boobu boo ne le pluie hey bala ngay daaneel woo oh, le pluie waaw ñu ne woo déggul tubaab dañ leen waaw nga ni le le le l'homme le femme ñu waa déggul tubaab waa jooju ak a nul mais wolof lu tax lu tax bu dee tubaab faute la erreur lu tax olof lu la neex war nga koo waxe non ñu dimbali ñu nag bala ñoo gën nag marche nag ngir ñu respecté suñu làkk yi parce que olof langue la bu am solo ci Sénégal làkk la boo xam ne dafa relier làkk yépp ñu koy wax fu nekk xam naa dinaa ci ñëwaat mooy bëgg ñëw ci néeg wi bis bu nekk rek ñu naan waaw olof amul aussi caaxaan nga ni ko lu tax mun la olof boo gis am na maamu nangam loolu du lay xam naa li ma koy wax bari na mais du ma noppi di ko wax feeg bàyyi muy dox olof amul su olof amut dara amut làkk mënul ñëw dominer ci am ëpp fa fuuf gën faa bari ñu ko amoo wéey ndax layu xam nga nit du dara amul lay loo amul rek dañ wax lu tax la ngay wax ci la ñuy tontu xam nga du ma ñëw rek olof amul nii man la lu tax nga ne xaw ma ci dara déedéet il faut que bu ma la laajee lu tax nga ne ma waaw parce que olof boo gis am na maamu man la maamu jana du taxawukaay loolu du lay bu dee ñaara juróon nit ñi dàqal olof mu taxaw ci njaago lu tax nga bëgg a taxaw ci njaago dàqal taxaw a góor yaa ngi ci yem ci aadama ak awa dàqal njaago mu dem ci séeréer dàqal séeréer mu dem ci tubaab maanaam français nga dàq français mu ñëw ci baynunke nga dàq baynunke mu dem ci lawbe dégg ngeen ñi mu koy waxee ndeysaan làkk woo dàq kon dàqal ba yegg ci aadama awa kon boo ni woon olof yàggul nanguwuma de waaye naa la mën a déglu waaw lu tax nga ni yàggul nga wax ma lu tax bu fekkee ni làkk wi mujj dafa mujjoone ñëw moom olof mu mujj ñëw terewu la am jë ñëw lay tund kenn du ko woy neneen mu ngi mel ni nga fekk ku jud jur ba caat nu nga ne ko sa caat mi du nit lu tax du nit dafa mujj a judd déedéet da ko am ah, sa caat mi kii mooy sa caat moom mu a judd bu dee olof làkk wi mujj a judd la layu olof amul du olof dafa juddoo ci nangam sàngam déedéet bu dee làkk lañ koy dàq mu jox ci làkk nag laa wax ndax loolu sax man dama koo gëmut dàq aw làkk mu jox jox ci làkk waxoon naa rek bu yàggul rek dama ciy dellu siwaat tey su ko defee mbokk yi ñu ñëw ci léeb bi dama rejeté ñëw rek door a ubbi téléphone bi léeboon lippoon amoon na fi daan na fi am mbokk yi léegi nga xam ne moom lañ tàmbali woon euh, àllal ba balay wees dañ ci yokk tuuti rey rek dafa amoon ci jamono joo xam ci benn àll dafa doon taw mu dët dët boo xam ne dafa maasale lu mat ay bis yu baree bare di taw rek guddeeg bëccëg jant bi feeñul àll bi fees del ak ndox ah jamono jooju nag ndox mi dem ba génn ci àll bi fépp di am ndox garab yi sax boo leen xoolee dañ ci biir ndox lañ taxaw jën woowu ñu wax kono kono génnoon nag dem waxoon naa leen jën woowu bi mu nekkee ci àll bi nag ay fan wala boog weer tawul ndox ma tàmbali di ngiis na mu jaaxlee woon ndaxte mënatul dellu ca dex ga léegi nag wax naa leen fa mu jaaroon ba suuf sanaree wow mu seey suuf sanaree ñiis ci kawam noonu mu dee cokkeer moo fa jaar wax naa leen waxtaan yu mu amoon ak cokkeer ga ba cokkeer jay seppi moustache ya ca ban ba di ko ñoddi ak waxtaan wañ fa waxtaan ba cokkeer ni ko nañ dem ca tool ya uti dund wax naa leen bañ fa jógee cokkeer awal ko ay laaf tànk we donc aw sàll ba mu demee ca tool ba di wër di raasaatu di lekk ba mu yàgg borom tool ba ñëw fa mu yemoon keroog mooy ba ba ñëwee cokkeer bi leen ni bàyyi ko fa mu ni dung tëdd noonu moom jën ca kaw lawtanu ñebe ja tuuti la ñu indi tey rek xaaj ko sakkanal ko seeraamtal leen ko beneen yoon ñu door ko àndale mbokk yi ba keebaa baykat ba ñëwee xool jën wa cokkeer gi ni për naaw nangu na yem abaloon jën wa di kono kono euh, baykat bi taxaw di ko xool ba mu yàgg mu ni waaw jën wu ne ñum mu nii rek tooy xip bees tax lii de léegi ba muy jël jën wa jën wu daal di koy wayal way wu neex lu ma ko way nag ndax way bi dafa day waar jën wu lim ko tënkal ca way mooy man de damaa nekkoon ci dex ndox jële ma fa yóbbu ma ci àll bàyyi ma fa man su maa dellu cokkeer ñëw dal ci sama wet gëmloo ma ni ma tool yi lekk nga fa daal di ànd ak man boot ma ñëw ci tool bi jox ma abal ma ay laafam ak ay tànkam aw sàllam ma wër di lekk waaye bi ma demee ba boroom tool bi yegg si jokkee ne na për naaw bàyyi ma fi loolu la tënk ci wenn way wayal ko baykat bi baykat bi dégg ko mu way ba mu siggi mu ne ah yu jënd xam naa kuñ ko fiiriral dana neex dal di gàddu jën wa dem yóbbul ko jabar ji jabar ji mu doon euh, tuddoon taara nekk benn xale bu jigéen bu rafet waaye xale bu jigéen bu am xel bi mu ñëwee daal di teg jën wi ne ko jën wii day maa ngi ko jële ca tool ya ndaw si ne ko ah aw jën wu ñëw ba ci tool mel ni lëg guy daw ay tool nu fa jën di demee foofu ab àll la mu ko ah voilà ko jële de mu ne ah man de loolu jaaxal na ma jëkkër ji ni ko moo cokkeer nag laa fa fekkoon waaye cokkeer dafa dem bàyyi ko fa moom mu des ndaw si ne ah cokkeer dem bàyyi ko fa aw jën Eh, bi ndaw si laaj jëkkër ji ni ko loolu jaaxal na ma jën ba daal di baamtuwaat wax ja ni man de ci ndox laa nekkoon taw ñëw jële ma fa yóbbu ma ca àll ba ma nekk fa aw ma tànk aw may laaf cokkeer ñëw ni ci sama wet daal di may dig lekk ba ma digee lekk abal ma ay tànkam laafam ak sàllam waaye ba ñu nekkee ca tool ba bu baykat di ñëw daf ni për bàyyi ma fa mu woyaat ko ndeysaan ci way wu neex ndaw si mu jógee ci dex ñu fekk ko ci tool ak ni muy waye waye mu neex wi moo wax muy wax ci nuy wax sax ndax wóor naa lekk ba pare nag déglu li mu wax bu baax jën woo xam ne jëlewuñ ko ci dex ga waaye ci tool ah man de jën wii bu ma sañoon kenn du ko lekk jëkkër ji nag ku déggoo woon ak jabaram jooju la mu ni tekkam yàgg mu ni ko ah li nga wax de xel nangu na kon xam nga nu ñuy def xaaral ma yenu ko yóbbul ko buur ndax jën wi kat dafa yéeme ndax way yu neex yi muy way Kéba daal di gàddu jën wa di dem ba kër buur ba mu yegsee daal di buur nuyu buur ni bëcc jën wa ca kanamu buur eh, dagg naa ko foofu kët ba beneen yoon ñu wax leen eh, nan la affaire bi di demee foofa ca kanamu buur ba mbokk yi ñu dem régie ñëw wéyalaat émission bi door ubbi antenne bi bismillah waaw mbokk yi loolu mooy léegi nga xam ne indi woon nañ ko tey euh, kon ñu indi leen ñeente ñeenteelu laaj bi nga xam ne day génne ci léeb bi mooy jën wi lan moo ko musal waaw tey lan ko musal lan la euh, mooy ñeenteelu laaj wi ñu delluwaat fàttali laaj yu njëkk yi rek laaj bu njëkk bi mooy man ci nit laa nekk waaye boo xaajee sama tur xaaj bu ci nekk mën nga caa génne ñaari tur man maay lan ñaareelu laaju tey mooy bërgël buñ ko doon wax ci tubaab lan lay firi bërgël njëm gimiñ baatu wolof la ci ñi ko xam njëm gimiñ ku ko doon wax ci tubaab noo koy waxee ñeenteelu laaj bi wax naa leen ko cog euh, jën wi lan moo ko musal tey tey lan moo ko musal 88 628 66 92 mooy suñu numéro téléphone kon ñu bi antenne bi rek fas yéenee jàkkaarloog yéen euh, di nuyu nag suñu xarit yi nga xam ne suñu so tamit euh, di leen bàyyi xel sëñ Boubacar professeur Boubacar Cissé mënuñ ko fàtte mukk euh, di nuyu ki nga xam ne mooy Dramé Pikine ak Dramé Parcelles ak Dramé IFAN am naa ñetti Dramé yoo xam ne samay soppe ay professeur lañ ñu ci ëpp euh, ay dañoo fonk émission Thiel-Weer euh, su ma nuyoo nag Dramé IFAN du man mën a ñàkk nuyu ñoom Adja ak ñoom le Bambara nu ma nu maa ngi fàtte tur bi bi nekk IFAN ay professeurs yoo xam ne dañu fonk làkk bi duñu sax ay wolof ñu ci bari waaye dañoo dugg ci ñi nga xam ne dañuy gëstu leen jàppale waaw waaw ndey mbay Ousmane waaw waaw saako ci internet bi ak Abdou Ndiaye waaw ah TFM Abdou Ndiaye TFM waaw ñu ngi may nuyu maa ngi leen di fay euh, suñu mbokk yu am solo lañu ñu ñoom it dañuy nekk ci internet bi di wax wax ju am solo di bàyyi xel émission Càllu Weer te loolu lu am solo la su ko defee 88 628 66 92 su ma leen nuyoo maa ngi euh, ndokkeel suñu mbokk murit yi nga xam ne ñu ngi waajal màggal ak safar di leen ñaanal yal na yàlla yokk xéewal yi yaatal ko euh, ba lépp tege ci yoon rek su ko defee ah man nag dama fier d'être un euh, damay bëgg tamit xale yi ñu leen wax lan mooy fierte du baat bu ñu sànni noonu rek fierté lu rëy la lu naqaree wax li ma taxa a mooy Sénégal c'est le pays africain boo xam ni mosul am coup d'état man maa ko wax man ko Diop Thialwer waral pays africain yëpp Sénégal rek moo ci mosul def coup parce que sénégalais ñun dañoo intelligent fierté boobu dañ ko war di exhiber di ko wax xale ñu bàyyi ko xel ndax am na yoo am na yu tuuti yoo xam ne Sénégal daf ko weesu waaye loolu nañ ko sante euh, ñi nga xam ni mooy suñu kilifa yi nga xam ne ñoo fi bàyyi valeur yu am solo yi muy ca guma ko guddal sax muy gudd di naa wax rek Sidi Hadj Malick si Ahmadou Bamba euh, ak ki nga xam ne mooy maam Limaamu Laay euh, su ma waxee foofu rek nañ bale ñeneen ñi loolu dafa jeexital ci suñu xalaatin dafa jeexital ci léppi Sénégal nag donte ñu bëri xamuñu ko man dama am fierté nekk Sénégalais je suis fier d'être un Sénégalais je le rappelle et je le répète su ko defee euh, mooy tax may faral di wax ni euh, Sénégal bu ñu xamoon seen bopp danañ moytu wax lu ñu xamul am na ko ne ci ligne bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum. allo allo allo. allo maa ngi lay dégg mbokk mi kooku kan la. Ah, Ndiolène. waaw kooku Serigne Mbacke Ndiaye la moom bu parcel ah baax a waaw na nga def Serigne Mbacke. <laughs> Euh, li nga wax ci wolof daal wolof dañu ko wutul article. ndeysaan waaw article <laughs> waaw ab taw waaw. ab taw lañu mën a wax. wallaay ndeysaan waaye wala li ma gën di jaaxal sax léeg-léeg taw taw wadd na taw bi wadd na lu bare bare naa nga ñu ne. <laughs> waaw <laughs> ndeysaan taw day wàcc. waaw day wàcc mango day day tàbbi. waaw waaw. picc mi dama ko rasper. Euh, mm, euh, waaw ndeysaan. mu mu mu wadd. mu wadd ndeysaan. waaye taw bi wadd na. Euh, jërëjëf <laughs> euh, tey damaa xaw a yàkkamti damaa am fu ma bëgg dem. waaye bëgg nañu loolu. si dama yëglu rek. waaw waaw waaw moom yëgu nga bu baax nag. waaw dinaa ko mën yàlla waxee lan. baaraka la ko yàlla motali. kooku Serigne Mbacke Ndiaye mu ngi nekk joor moom li muy woote bari na ci émission bi maa ngi fàttaliku bi ñu tàmbalee fii ba léegi day woote yenn saa yi sax mu dugg ñaari yoon te mosuma dégg muy wax yu doyee di day wax yu am solo euh, ñu ngi koy sant di ko gërëm di gërëm ñi ñi nga xam ne ñu mel ni ñooñu ay fidèle téléspectateur lañu ñoom euh, waa ginnaaw raay ñooñu euh, bugguma lim rek kenn yaa Jóob tudd ma ñoom li ñuy li ñuy woote dafa bari lool te ñu wax wax ju ñàkk solo di nuyu ki nga xam ne mooy suma xarit di njuga faal marché zing fàttewuma la euh, di baamtu rek baat bi ma waxoon sànq bég bég naa lool ci tataay yi ne Sénégal ndax ni ñuy def ci transport ñoom daal wax dëgg yàlla ñooy ñuy dimbali buñ jaaxlee rek daw dem ci tataay nañ leen kon nangul sant leen ko te ñu gën a wéel liggéey boobu gën ko yaatal waaw kay ndax transport nag problème bu sérieux la fi Sénégal il faut le dire et le répéter bu ko defee 88 628 66 92 ngeen tontu ci cax wi cax wi mooy man ci nit laa nekk ci nit laa nekk waaye sama tur boo ko xaajee xaaj bu ci nekk da nga fa am ñaari tur man maay kan loolu mooy laaj bu njëkk bi benn bi baatu wolof bu leer naññ la bu ñu miin bërgël ma bëggoon ku ma ko baaxee rek ci tubaab bërgël mooy lan beneen baat bi moom ba tey tubaab la nuñ koy waxee ci maanaam wolof la nuñ koy waxee ci tubaab mooy euh, njëm gimiñ baat la boo xam nag ñi koy wax bareetul man gëj naa ko dégg lool xam naa daf ma dikkal ci fan yi rek ma fàttali ko njëm gimiñ mag ñoo koy wax njëm gimiñ am na ñoo xam ne sax xamuñ luy njëm gimiñ waaye du ñàkk mag ñu xam luy njëm gimiñ wala ñu am ku mën a laaj mag ni waaw luy njëm gimiñ lu jafe nag wax ci tubaab waaye boo xamee baat bi daf lay wanal ni loo gis ci tubaab rek am na ci wolof yow yaa ko xamul wala man xamuma ko waaye moom am na waaw mooy njëm gimiñ am na baat bu mu tollool ci tubaab firiwul nag ne booy firi làkk am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne làkk boo koy xam lu ne koy firi un deux trois wala wan wan wan doodo yenn saa yi nit dañ lay sonal day ñëw ku waaw montre duñ ko waxee ci wolof <laughs> montre waaw wala am ku ñëw ne la waaw day day ñaag benn baat rek ne la ñuy waxee lii lii fekk du làkk doonul loo xam ne lu am fii am na fële déedéet bëgguma ne nit ki dégg ko defee ni olof dafa am yu mu amut déedéet olof am na yu tubaab amul tubaab am na yu wolof amut ndax làkk li koy def liy ràbb làkk li koy tabax li koy samp mooy aw làkk fa nga jaar ak ya fa nekk ak na ngay dundee ak na ngay liggéey ak na ngay doxee ak na ngay xalaate day jur ca làkk wa ay baat xam nga suma ma nit laajee ni ma waa kilomètre nuñ koy weexee ci ci wolof xam mënoon naa koo firil firi ak tekki bokkul firi làkk ak tekki bokkul kilomètre xam nga mooy junni junniy mètre waaye dafa bëgg mu am benn baat wala mu ne ma kilo mooy lan ci tubaab rek mu gën a gàtt kilo man dama lay wax ne la ndax olof la daan peese olof daawul peese peese tubaab boo ko indil kon boo bëggee kii ci olof da ngay sonal nit ñi olof àndaar la amoon di ci nat waaye soo ma ko waxee ñaari man la waaw nu ñuy waxee garbaasu ci tubaab da nga naan waaw garbaasu ah tubaab dafa xam garbaasu wala man la romb jaan nañ ko waxee ci tubaab wala man la laabaan nu ko tubaab di waxee 88 628 66 92 Euh, tey moom dafa dama ko aj moom tey moom li ma li caxaw yi sax mooy caxaw a gën a yomb waaye dama ko aj baat yi ñu ko xam bërgal ñu koy xam ci tubaab du bari jàpp naa ne kenn du ko tontu fii njëm gimiñ tamit jàpp naa ne kenn du ko tekki waaye nag ki doon déglu léeb bi tey te teewlu man na wax euh, jën wi lan moo ko musal xam nga jën wi dafa mucc waaw dafa mucc tey lan moo ko musal di ko musal boo teewlu woon léeb rek war nga koo xam su ko defee nag li nga xam ni ci nit la nekk ba pare soo xaajee aw turam benn xaaj bu ci ne am ñaari tur am na ku ne ci ligne bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk mi waaleykum salaam mbokk mi ci ligne bi mbokk mi defe naa dégguma ko de allo allo kooku dafa mel ni dem na 88 euh, 628 66 et 92 su ko defee ah ni ma koy faral di waxee rek bu ma ñëwee fii euh, wax ni baat yi nga xam ni moom la ñuy indi nii ay baat la yoo xam ni euh, su fe ah am na ko ne ci ligne bi asalaamaaleykum. allo allo mbokk mi na def. oh là là boo déggee mu ne teint teint teint dem na yoonu. Euh, baat la yoo xam ni 88 628 66 92 ku dugg rek boo wootee na nga wàññi sa télé wàññi euh, daal di ubbi sa téléphone am na ku ne ci ligne bi maaleykum salaam mbokk mi allo allo yegg de allo mbokk ci ligne bi fa dem kon dem 88 euh, 628. 66 et 92 su ko defee rek maa ngi nuyu waa ba dañoo dóor benn équipe bu yàggul nuyu sama équipe yi ñu sama koj bi yëpp ba dóor na leen Farba ay waay Far asalaamaaleykum allo. waaleykum salaam. waaw mbokk mi na nga def. maa ngi sant bu baax Babacar. waaw. jërëjëf Dramé Pikine. waaye Dramé Pikine ñëw na de moom moom jàmbaar la. maa ngi lay ziar bu baax. ñoo ngi laa delloo ziar Dramé. Eh, di ziar eh, auditeur auditrice. ndeysaan. di dégg lool ci émission bi. wallaay ndeysaan Dramé. di la ñaanal kàttan ak wér ak gudd fan. amiin ñu bokk ko. ak jàmm ju sax dakk. baarakallah. jégal ba faw yàlla ñu ko yàlla defal nit ñi. wallaay ndeysaan. <laughs> waaw man de jën wi moom ci laa bëgg wax rek waaw ci maanaam man de jàpp naa ne dëggu rek ko musal ah waaw jën wi waaw dëggoo ko musal nga jàpp yow waaw waaw man daal li may jàpp mooy waaw dëgg rek dëggu daal ko musal nasta wax lu dul dëgg waaw <laughs> ndeysaan daa sa am kóllëre it nag di dox ci dëgg rek daal ba mucc wallaay ndeysaan waaw loolu la laaj wax nga lu am solo yeneen yi nag teewlu ma ko ma ko moom waaw waaw waaw <laughs> <laughs> ñoo ngi ziar ñëpp nag di la bëggee bu baax. waaw ñoo ngi bëgg ci yow bu baax yow moom kenn nga ci ñun. <laughs> yàlla yàlla saxal jàmm ci. baarakallaaw ñu bokk jërëjëf. ak xéewal ak wér ak wér la. ñu bokk ko. jub ak juble ak juboo. wallaay ndeysaan nag yàlla def. damay wax gars ne leen lu ñuy jub jub jub. te juboo wuñu. waaw. kenn du dem. wallaay loolu dëgg la. <laughs> moo tax juboo am na solo lu am solo la ndax nit ñi duñu bokk fu ñu jëm mm-hmm. duñu bokk nu ñu mel waaw waaw duñu bokk bëgg-bëgg mm-hmm. waaye danañ waxtaan ba juboo ci dara tënk ko mm-hmm. looloo waral pénc waaw loolu dëgg la waaw mbir ci néeg lay njëkkee ñëw ci ëtt dem ci pénc ma doog dem ci pénc waaw dëgg la dagguma la gis nga jàmm bu doon garab hmm. dëggu moo koy suuxat mu jeex takk jeex na takk ndox mu ñuy wax dëggu rek moo ko mën a suuxat moo ko mën a suukar dëgg waaw waaw dëggit hmm. ah waaw waaw maa ngay dolli ci dëggu ne waaw waaw moom itam dëgg gu jaadoo wax rek waaw baraka la waaw waaw waaw mooy taxam piñ ci neex waaw yàlla baax na. yàlla nañu yàlla defalu ak. bëgg nañ ci yow lool. jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Dramé. waaw ñoo ngi bëgg ci moom sëñ Dramé say saa yu nekk day faral di woote ah, di wax wax yu am solo te moom noonu la koy defee rek ah, yal na yàlla motali yéene 88 628 66 et 92 yéen ñiy laaj yan laaj ñoo fi génn tey déglul déglul am na ko ne ci ligne bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum. waaleykum salaam mbokk ci ligne bi allo allo yegg seegul de 88 eh, 628 eh, dafa xaw a 10 de daa ngi buuxante ci ligne bi rek mu xawa a teeng 88 eh, maa ngi fàttali rek yow mi fàttali yow mi bëgg a xam laaj yi cax wi tey lenn la li nekk ci nit te boo xaajee tur wa xaaj bu ci nekk mën naa am ñaari tur yombul nag ci nit la nekk waaye boo xaajee tur wa xaaj bu ci nekk mën naa am ñaari tur nii waaw waaw cax bu xaw a jafe la bërgël yow mi dégg wolof laa koy laaj ci tubaab bërgël laaj ma ko ci wolof de bërgël baatu wolof laa wax bërgël ci tubaab lan la tollool njëm gimiñ waaw njëm gimiñi baatu wolof la te ñaari baat yi mu indi wolof la ñuy laaj nan la ci tubaab njëm gimiñ boo ko wax ci français lan ngay wax ci tubaab waaw euh, lan moo musal ki nga xam ne mooy jën wi ci léeb bi nga xam ne moom lañ doon léeb tey 88 628 66 92 su ko defee sànq maa ngi woon ci baati olof yi euh, ba duggoon ci Euh, baat bi nga xam ne euh, defe naa maa ngi doon wax euh, ki nga xam ni xàmmeewul article ci wolof ba tax muy wax taw ju bare ndox ju bare waaw defe naa sëñ bi woote sànq wax na ko làkk dafa am article waaw article boobu nag boo ko xamul doo respecté làkk wa baat boo gisee rek am na aw sant am na mbokk mu ne ci ligne bi xanaa asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum mbokk mi. Uh, Ndiobène man maa déglu. waaw sëñ Mbacke waaw sëñ Mbacke. bërgël. waaw mooy abandonné. waaw nga jàppee bërgël yow. waaw wax nga lu am solo sëñ Mbacke waaye dañ koy notee rek. sëñ Mbacke <coughs> waaw. Eh, waaw sëñ Mbacke bég nañ ci lool gis nga ñëwaat na daal di tontu tontu bu gaaw wax wax ju am solo. sëriñ Mbàkke nee na bërgël mooy abandonné sëriñ Mbàkke waaw waaw 88 628 66 et 92 su ko defee euh, ni ñu ko baaxoo di def rek euh, di baamtuwaat wax yi dafa am solo euh, gis nga baati wolof yi ñuy jàpp ni réer na ba tey am nañu ko xam ndax saa yoo ko waxee rek am ku ca ñëw wax ca wax ju am solo kon am na ku jot a tontu benn yoon ci bërgël waaye dañuy bàyyi ñeneen ñi wax ci seen xalaat bërgël ku ci xam leneen lu dul lii mu wax rek nañu ko indil kon bërgël mooy ñaareelu laaj bi ñetteelu laaj bi e, nekk njëm gimiñ njëm gimiñ lan la ci olof laaj bi njëkk aw cax la cax wi mooy e, li nekk ci nit tex boo ko xaajee ci digg bi benn xaaj ba day am ñaari tur beneen xaaj bi tamit am ñaari tur te moom ci nit la nekk loolu loolu mooy lan su ko defee euh, ma ne bërgël mooy lan ci wolof ma laajat njëm gimi ci tubaab laay bëgg a njëm gimiñ ci ba tey lan la yow mi doon déglu léeb bi lan moo musal jën wi 88 628 66 92 yow mi nga xam ne jetoo woon a jël suñu numéro euh, sànq maa ngi woon rek ci article yi nga xam ne Euh, liñ ciy faral di ñëw dafa bare ndax bokk na ci euh, baasu làkk mooy mu am article boo waxee wax bi ki ko dégg xam ni yow mii wax bi xam nga fi nga koy dëj xam nga fi nga ko teg euh, làkk yu ngay wax lu normal la tubaab ñoom fexe nañ ba bind seenu làkk boo boo ko damee soon yenn ndax bu waaju ubbee téere ba fekk ko ca am na ko ne ci ligne bi salaamaaleykum am na ko ne ci ligne salaamaaleykum salaamaaleykum. maaleykum salaam. allo. interférence waaw kay xoolal. ku dugg di woote rek da ngay wàññi sa télé boo bëggee di seetaan sa bopp ci tele bi di dégg sa bopp ci tele bi day jaxase wax ji fii waaye soo wàññee télé bi rek. waaw kay waxal ci téléphone bi aywa kooku kan la. waaw Haadi Dem la tudd Haadi Dem. Haadi Dem na def waay. Haadi. sant yàlla bu yaa ngi ci biir ay wax sëñ Xaadi foo dëkk. maa ngi dëkk Kastor. yaa ngi ci biir. waaw ba tey maa ngi koy dégg ne sëñ Xaadi. ci bërgël bi laal doon laal doon tontu. ci. bërgël bërgël. bërgël wa ñëwal. bërgël moom naa daal mooy maanaam lu ñu bàyyi rek. di daaw doxal sadar man ci tubaab laa koy laaj laaju ma la wolof dama wax baatu olof bu ma ko wat ci wolof tubaab lu muy wax bërgël ci en tubaab en français. ah kon xaaral ma jox la tubaab bi. waay jaajëf waay jox ma tubaab bi. voilà. salaamaaleykum. waaleykum salaam. na nga def sëñ bi. maa ngi fi rek ba te yéen a ngi déglu seen télé bi boo boo demee ci téléphone bi rek day baax waaw baarakallaaw. ah loo doon laaj bërgël mooy lan ci français. waaw kay lan la tollal bërgël. ah lan la tollool. waaw ci français boo ko doon firi ci français rek mbërgël yow xam nga ko ci wolof bu doon français looy wax mbërgël. allo. allo. aadi yaa ngi may dégg mbokkum aadi dem na nee na teet mbooloo salmina on maanaam fulbe ñooñu ay pël lañu wax yu ni ma déggee ñu waxee rek pël lañu am solo lañu ñu am jom lañ ñoom vraiment saa yu nekk dañuy dugg ci émission bi di wootee di wax ci wolof yi. am na ku ne ci ligne bi asalaamaaleykum. <laughs> Babacar. waaw kooku. sëñ Dramé. ay eh, Dramé ñëwati na jaajëf <laughs> waaw waaw waaw taw. Dramé again waaw. ma ne taw. waaw. bu ba. waaw <laughs> sëñ Dramé dem na waaw su ko defee. Euh, waaw waaw mu ne ah, am na ku ne ci internet bi laaj est-ce que du ignoré moom moom laajul man la maay laaj ah moom ignoré la ko jàppe Matar Sarr waaw maa ngi maa ngi dégg Matar saar ci internet ji la moom nee na bërgël mooy ignoré waaw ah, xam naa li tax mu wax ko moom bërgël Matar Sarr nee na bërgël mooy ignoré bu leen fàtte nag am na ku ci wax joxe benn tontu tontu yi nag lu am solo ndax loolu de na ko ne ci ligne bi mbokk mi. Diobène bi. waaw sëñ Mbacke. dellu si naa de. waaw aywa bisimilah. mooy loxo loxo. aywaay sëriñ waaw xasab xas da ngay xasaat xastaake ah sab xas xas sab hmm. eh, janaab eh, ganaar moo koy def ah ganaar moo koy def waaw përëg waaw për waaw ndox eh, ngooñ la muy jox am xar mu mu xar bu ngooñ mu nooy mi rëkk aw dóor la aw dóor la waaw waaw man de damay bàyyi rek ba ci fin ba incha allah ma ma xool. ba rek comme ni ma ko waxoon rek euh, maanaam euh, euh, fas. Hmm. boo ko boo ko wàccee. waaw da nga koo da nga koo bërgën. da koo bërgën hmm. waaye gone da ko dumaa ba mu dërkis. waaw nga ko yow bërgën naa la rek. Hmm. waaw loolu am na solo ko rek mu gën a kii. waaw waaw waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah. baarakallahu sëñ Mbacke walaay ndeysaan moom day. kenn amul payam moom eh, moom day wax rek wax ju am solo ba pare am na ko ne ci ligne bi asalaamaaleykum. allo. allo. wàññil sa télé bi te nga wàññi sa laaj yaa ngi laaj koy dégg. allo. allo oui. ça va. bien. noo tudd. man Astu. Astu nan. Ndoom. da nga bëgg a tontu ci wax ji Astu aywa. waaw burger man maa ngi jàpp ni mooy classé. mooy classé. waaw. Astou Diaw Astou fan woote. man Sinja. ah. Sinja Sinja. ah Sinja. waaw. ah waaw waaw Sinja naka waa Sinja. ñoo ngi si. bébé Astou xanaa da yow ni ngay wax dafa sedd de. <laughs> non non sax bërgël daal maa ngi jàpp ni mooy classé quelqu'un jusqu'à. mooy classé jusqu'à ignorer ses actes. ignorer ses waaw yaa ngi wax ko lu solo de man nag dama damaa noppi ba ci fin bi rek incha allah. lu am solo nag li ngay wax ni waaw. merci Astou. ok jërëjëf Astou. am na ko ne waaw astu astu tontu lépp bërgël lay tontu dégg naa li mu wax de ah Abdou Ndiaye Abdou Aywa nee na mooy mooy bi waaw ah waaw waaw waaw waaw waaw xam naa waaw waaw waaw dégg naa Abdou moom mi ngi tontu ci kii bi bu nekk ci internet yi mi ngi tooñ tontu ci lan moo musal euh, jën wi waaw loolu mu ne way wee ko musal moom waa Abdou Ndiaye waaw moom jàpp na ni way wi moo musal wax na ju am solo loolu ci dafa am solo parce que kuy teewlu léeb rek mooy mën a wax loolu donc seen wax yi dafa am solo dafay wane rek wax boo ko déggee euh, li tax ngay wax euh, nit ku nekk euh, ni muy déggee wax bokkul boo taxoon di wax ak fukki nit saa yu nekk dama koy wax soo waxoon benn wax nga tëj fukki nit ñi di leen génn kenn ku nekk di tontu ca wax ja doon wax nañ sax ku ne euh, fa déggam tollu lay waxe euh, am na lu ku ne ci ligne bi daal asalaamaaleykum. Ah, sëñ Diop. waaw sànq bi na def. alors na ngeen def. sant yàlla kooku. waaw man de dama leen a jër dëkkuur waaye ñaar yi ma dégg laa bëgg a tontu yéen. aywa tur wi la. Ah, sa mbokk la de sëñ Demba Diop. ah waaw ah, bi nekkoon RTS wala. déedéet ah ku lay woo Grand Mbaaw waaw Grand Mbaaw maa ngi doon ñëw Demba Diop daan wax wax ju am solo ji audio yi ma lay envoyé waaw waaw xam naa Demba Diop baat bi kay dama ko xam voilà bi <laughs> may dugg waaye xam nga da nga ni woo xamante ni cër la ci doomu aadama boo ko xaree mu jox la ñaari sant waaw waxuma sant de ma ne ñaari tur la lay jox waaw ñaari tur mooy bakkan rek waaw ah yow bakkan dama ne ah, ah man ci nit laa nekk waaye man boo xaajee sama tur waaw xaaj bu ci nekk da nga ci génneewaat ñaari tur. waaw mooy ba ak kan. Ah, mooy yow bakkan yow bakkan nga jàpp. waaw beneen bi tam mooy délaissé. Ah, mooy délaissé. délaissé. waaw yow délaissé délaissé mooy lan mooy bërgël walla bërgël bërgël mooy délaissé. délaissé waaw. délaissé. waaw mooy ki nga wecc carrément. waaw waaw. waaw ñaari yow laa bëggoon tontu. waaw daañu ci bàyyi xel incha allah ci fin bi rek daa ñëw. leeral jërëjëf jërëjëf sëñ Demba Diop ku baax la ñu noonu waaw waaw waaw waaw mooy indifférence kan kan géey la nu mu tudd Njóoba Géey waaw Njóoba Géey ci internet yi la waaw waaw waaw waaw nee na pour moom euh, bërgël mooy indifférence baat yi nii laa koy bere benn par benn ndax baat yi dafa ma amal solo ni ñuy wax indifférence kooku Njóoba Géey moo ko wax indifférence 88 628 am na ko ne ci ligne bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum. waaleykum salaam. mbokk mi na nga def. maanaam Modou Dieye. Modou Dieye. waaw. ayo bisimilah yaa ngi ci biir. kii moo moo tudd kii quoi laisser aller. ah yow laisser aller nga jàppee baatu bëggal nee na mbokk yi euh, laaj yi ñeenti laaj lañu laaj bi ci jëkk mooy euh, man sama tur man ci nit laa nekk waaye sama tur boo ko xaajee xaaj bu ci nekk day am ñaari tur loolu man maay kan loolu rek laay laaj man ci nit laa nekk waaye nga jël sama tur xaaj ko ci digg bi xa xaaj bu ci nekk da nga koy génneewaat ñaari tur lu sew la nag li ma wax nii bërgël mooy lan ci wolof njëm gimiñ moom kenn waxu ci mooy lan ci wolof njëm gimiñ mooy lan ci tubaab di moins mooy olof la donc 88 628 66 92 xam naa danañ ñëw rek fàttali laaj wi laaj yi fii jaar allo alo dafa am ku ne ci ligne bi allo ñu ngi ñaan ku dugg rek mu bañ a déglu ci tele bi day wàññi télévision bi rek déglu ci téléphone am allo bokk mi ne ci ligne bi allo dem na eh Mao Sidibé spécial dama lay ja eh, jagleel tellu weer lay te yaag team bi maa Sidibé ñu ngi bég ci yow loolu Umar Pène may nañ la ko yal na yàlla yokk fan yi guddal sàmm xale yi 88 628 66 92 waaw Euh, di ko may waa Lac Rose yëpp di jiital Malick ba suma xarit moom mu ngi Lac Rose ak jarbaatam boobu nekk fële ca kii ba ndeysaan ca Lac ba aleykum salaam. allo allo oui. naa def. Ah, sant yàlla. tur wi lan la. yaa may dégg ma ne. waaw. kii ah Hadi dem moo ñëwaat. waaw Hadi waaw. sa pol bi waaw comment na pol bi. waaw dem bi moo tax nga wax pël bi wax ji moo tax nga wax pël bi. ah pël bi <laughs> dama ne. waaw ziar naa la ma ne. waaw. mais sa kaddu bi nga wax moom ma leer bu baax mooy li nga wax noonu nekk ci nit cër la ci nit wala tur nit la nga wax. waaw xam nga cax boo koy wax. Euh, cax boo koy wax nii da nga koy lëndëmal. dama ne ci nit la nekk rek waaye moom. Mhm. soo jëlee turam. ah ci nit la nekk. waaw waaw xam nga bu ma nee ci nit la nekk yaay xalaat nan la nekk nit. voilà comme loxo wala bopp mbala affaire yu waaw moom ci la nekk waaye boo jëlee turam nga xaaj ko ci digg bi xaaj bu ci nekk mën nga caa am ñaari tur. Mhm. leer na. <laughs> Ah, haadi yow far nga dëkk nga ni Kastoor wala. <laughs> jàpp duma quartier de. Kastoor waaw. waaw Kastoor haadi dem Kastoor waaw Alési moom dugg na ñaari yoon jàmbaar la. ñoo ngi bëgg ci waa Castor waa jëppal Liberté 6 ñoo ngi bëgg ci yéen ñoo ngi bëgg ci waa sama booy fan la dëkkati foofu waa ñaari tali waaw ñaari tali ñu ngi bëgg ci ñoom ak biscuiterie waaw koñu ñoom kii suñu booy boobu nu mu tuddati waaw 88 628 66 92 li ma des sax bariwul euh, xam naa danaa ñëw def li ñuy wax ci tubaab tënk euh, fàttali ni baat yi nga xam ni jaaroon nañ fi te muy baat yu ñu jar a bàyyi xel baat yoo xam ne su ñëwee dañ ci ñëwaat mooy euh, dafa am ku wax ni maanaam dafa am xibaar bu ñu dab dabaatal loolu laa jëkkoon a wax baaxul kenn du wax dab dabaatal dafa am xibaar bu ñu dab doy na sëkk loolu surcharge la di yokk suñu wolof yi dafa am xibaar bu ñu dab léegi waaye dab dabaatal yooyu guddal la rek waaw euh, pour que ñu xamantiku kenn ko wax ngir ñu xamante rek la ñuy wax ngir ñu xamante ak ñoom amul xamantiku ngir ñu xamante ak ñoom waaye xamantiku ak ñoom non du loolu moo wax ne euh, ki wax ne fitna ja amoon fële ca Kër Masaar mooy taw ju bari jooju ak ndox ju bari jooju eh kooku moom dafa ñoo yab li ko leen moom géey di wax kooku dafa yab wala fi taw ju bare ak ndox ju bari kenn du ko wax taw bu bare ndox mu bare lakk wi dafa am ay article am ay règle euh, boo leen fàttalikoo bi may dugg ci émission bi maa ngi dugge woon ak léebu gaaruwaale garmbaasu réex-réexle ñu faram-fàcce woon ko muy baat yu wolof di wax ñu am solo su ko defee rek euh, xam naa euh, dañuy ñëw ci laaj yi nga xam ni ñoo fi woon jéem leen a toj tey mënoon nañu den ci tax bi ah, kenn tekkiwu ko mënoon nañ koo denc ba bii di ñëw waaw waaw sakkanal ko xaar ma denc cax wi sax tontu ci yeneen yi ndax cax wi ma wax dëgg yàlla kenn tontoogu ko taj waaye ñu ngi sant bu baax Serigne Mbacke njaay euh, saa yu nekk day dugg di wax wax yu am solo moom moo jëkk a tontu ci bërgël euh, am na ñeneen ñu ci wax nag euh, ki nga xam ne mooy drame pikin tamit bi mu wootee tontu na ci dëggu muy lu am solo mooy jën wi wax dëgg yàlla lenn ci li ko musal mooy dëggu nit mënoon a dugg na gis leneen ndax euh, nit dana dana dana am lu xew yu bare dangay dajale yu bare nit lii li tax mu xew lii ak lii ak lii kon dëggu lenn la ci ci lu sobe jën wi waaye euh, li muy dëggu dëggu terewul woon waa ji ba koo lekk rek waaye boo seetloo ndaw si tamit kon ndaw si tamit ku dëggu la waaye ndaw si ku am seetlu la kon dëggu jën wi lenn la ci waaye doyul woon ndax waxoon na ko waaj te te terewul mu andi ko waaye ndaw si dëggug ndaw si lay yokk ci dëggug jën wi ba tey du dindi dëggu kon dëggu day daal di nekk lu am solo ci tontu yi waaye ndaw si tamit dafa nekk ku ñeewante ku am xel ku bàyyi ku am kuy bàyyi xel daal waaye jëkkër ji tamit ku sopp soxnaam la kuy dégg wax la boo ko waxee day dégg ndax bu ko jabar ji waxaa mënoon na fa nekk di lay kon mënoon ngaa dajale wax ji yaatal ko leeral ko ni lii ak lii ak lii moom musal jën waaye boo nee dëggu rek wax dëgg yàlla laal nga xolu wax ji kon loolu am na solo euh, bërgël euh, Serigne Mbacké Ndiaye wax na ni moom euh, mooy firi a abandonné xam nga li ma intéressé foofu ba ma di fi ñëw soo déggee baat baat mën naa firi yu bari yépp nekk dëgg ndaxte euh, wax ja loolu lay firi waaye li ma amal solo rek mooy baatu wolof boobu nga laaj ko ñu firil la ko ci wolof abandone am ku wax laisser aller am na ko wax classé am na ko wax délaissé am na ko wax indifférence déglu leen baat yooyu rek moo leen di xamal baat bi ba solo maanaam bërgël mooy indifférence ñii ne mooy laisser ale ñii ne mooy euh, abandonné waaw kay xam nga am na ku wax ignoré voilà am na ku wax ignoré waaye loolu lépp day wane ni ñoom ñëpp xam nañu sensu baat bi donte wax yi amuñu dose yi amuñu degré xam nga bërgël cosaanu bërgël ci fas lay lañ ko gën a miin waaye ci jur lañ koy def rabu àll yi rab yi boo leen dee sàmm ba mu yàgg tool yi amatul luñ fay ruur boo bàyyee boo leen sàmmatul rek bërgël nga leen boo dee yeew sa gétt ba mu yàgg wala nga yeew aw fas wala aw nag wala mbaam ba mu yàgg nga bàyyi ko boyal ko bërgël nga ko loolu mooy bërgël de loolu tax ñu wax fasu mbërëg wala fii miin nañ ko bépp jur goo xam ne sàmmatuloo ko da nga koo bërgal waaye ana libéré uwey libéré benn la ci baat yi na ngeen koy di de kon baat yooyu nga doon wax yëpp dañoo xaw am sensu libéré abandonné nag li tax ñu wax ko dafa am solo mooy euh, wolof dañuy jël bërgal ci sensu wuyu yi nga xam ne dañ koo bërgal léegi nag loo ko wax du ko def loo loo boo boo ko yóbboo foofu day daal di tudd ah, abandonné waaw waaw doom nga xam ne da nga dem ba doo dootoo ko yedd dootoo ko wax dara doo dugg ci ay mbiram nga bërgël ko da ko abandonné waaw waaw moo tax baat yu bari yooyu li am solo ci wolof ni baatam richer nga wax benn baat ñu indil la ko ñeent ba juróom yoon ci tubaab mais bërgël moom mooy libéral day firi libéral waaw waaw mën na firi yeneen yooyu yëpp ci contexte bi mooy tax nag loolu dafa am solo ci wax mooy fi may waxee ak ki may waxal ak li tax may wax day tax baat bi firi fii nii day am foo xam ne boo ko fa yóbboo day firi abandonné waaw waaw dañ ko abandonné léegi kenn waxatu ko xam nga yooyu nag sorewul ak délaissé mais baat yooyu dañoo xaw a woyof délaissé indifférence genre bërgël la de il me laisse indifférence genre bërgël la ci benn contexte par rapport ak benn xew-xew kon ñu ngi bég lool ci ñi doon woote ak wax yu am solo yooyu ñuy wax waaye wax naa leen ni damay aj cax wi ba beneen yoon ñu indi ko waaye danaa ki baatu njëm gimiñ kon bërgël mën na firi libere mën na firi abandonné waaye libere mooy baat bi gën a begg di saa yoo libéré dara bërgël nga ko baat na dafa xaw a jëm au sens péjoratif du terme boo boo nee bëri boo nee rek wala boo nee bërgal nañ ko rek dañuy defee ni fu ñaaw la jëm waaye fas wu ñu bërgal firiwul ni dañ koo mere dañ ko libere ngir kenn sàmmatu ko kenn yeewatu ko kon foofu baat bi am fu benn sens bu péjoratif bu dëgër su ko defee euh, ñeent ñetteelu cax wi nga xam ne mooy euh, mooy njëm gimiñ kenn waxu ci baat bu diis la ñu bari duñ ko xam baatu njëm gimiñ mooy lan ci olof faw ma tekki ko nii jéem a denc cax yu ba beneen yoon ñu sakkanal ko kon bërgal nit ñi tekki nañu ko mooy libéré mooy abandone ça dépend ci contexte waaye mooy libere nag waaye lan mooy euh, waaw tekki woon naa kii moom tekki woon naa ko muy euh, jën wi lu ko musal tekki woon naa ko dëggu ak yama ca wax yëpp duma ma ci ñëwaat njëm gimiñ ci olof mooy lan lépp loo xam ni dañ koy lekk olof da ko wax njëm gimiñ waaw njëm gimiñ mag ñi bu ñu ko daan wax ñu ngi ci jublu loo xam ni c'est lekkable naa ko wax ci tubaab bi tax ñu xam ma kon kay c'est comestible njëm gimiñ mooy quelque chose de comestible mooy baat bi bu ñu la nee luy njëm gimiñ nga ne comestible lii kay njëm gimiñ la bu ma tegoon fii suuf teg fii sànqal da nga ma naan lii njëm gimiñ la mooy ça c'est comestible waaw pour wax rek ni olof am na lépp waaye ñun ñoo ko dul xam euh, maa ngi sant ñi nga xam ne ñoo jàppoon ci émission bi yëpp euh, ki nga xam ne mooy Malick Diallo euh, ak ki nga xam ne mooy monsieur Gaye le caméraman le grand grand caméraman di nuyu ñoom may Maymuna ñi nekk régie ñoom Pape Malick Ndiaye ak ña fa nekk ñëpp ñëpp ñëpp rek ah, di leen sant di leen gërëm di la wax ni la yow mi nga xam ne da ñoo yéene jàmm yow mi nga xam ne da nga soxlaa jokkoo ak ñun jëlal suñu numéro 77 043 81 et 08 kon mbokku téléspectateurs yi maa ngi leen di ñaanal jàmm euh, di leen dig daje àllarba bi di ñëw à 15 tey mooy naa la mooy naa la mooy naa la mooy naa la gom daw de la tool ñanga ne